mbokki internet Mak TV Sénégal gannaaw bu ñu nuyoo ñu amaat mbégte àndaat ak yéen comme ni koy faral di amalee bés bu jot rek ñu fas yéene la docteur xibaar yi li si gën a fës dañ koy nag daal di àmbale tey ak wàllum politique wax nag ci li nga lii di parrainage yi nga moom lañu rek daal di dugal ci li nga xamante moo di élection législative le bi rek ñu daal di dëgmal loole nag tax ba ñi nga xamante ni ñoo di rek euh, opposition bi rawatina ñi nga xamante ni ñoo di waa yeewi askan wi daal di mer ba fut ndiki démb nag ab conférence de presse nañu amal di rek daal di ñaxtu ci li nga xamante ni moo di intégration lii di législative lii di euh, parrainage yi ci élection législative yi ñu daal di dëgmal nag ku ci mel mel ni Aïda Mbodj wala kii di Ousmane Sonko ba ci Déthié Fall ñoom ñëpp nag daal dinañuy addu wax ca boobee mbir ni euh, moo di euh, parrainage yooyee gannaaw nag ba ñu jàppee ni li di parrainage yooyee nag dañ ko daal di def pour rek daal di sélectionner and candidat yi nga xamante moom la kii di njiitu mi bëgg ñu daal di participer si yooyee élection moom euh, kii di Déthié Fall daal dinay fàttali ni ñoom coalition Benno Bokk Yaakaar boobee ci élection yi ñu daal di dëgg génn dañ leen daal di dóor dóor yi métti ba tax na ñoom ñi nga xamante ñoo di waaye yeewi askan wi ville yu bëri ci euh, Sénégal ñoom ñoo ko daal euh, nangu bokk na ci Dakar Guédiawaye Thiès ak Ziguinchor moom Déthié Fall xam ne ni Benno Bokk Yaakaar daanaka lu takku ci ay li nga xamante da ni moom lañ jàppoon ne amoon atub 2019 rek daal perte ndax kat ren ji rek la daal am ci électeurs yi kon mu daal di ñàkk lu tolloog 16 pour cent euh, ci li nga xamante ni ñoo di ay électeurs am loole nag nekk loo xamante ni ñii di waa Yewwi Askan Wi daal mooy ca euh, lii di conférence de presse bu ñu doon amal doon ñaxtu euh, lii di euh, parrainage yu ñu bëgg a dëgal ci li nga xamante moo di élection législative yi foofee nag na si profito daal di waxaale li moo di candidature kii nga xamante ni moo di Khalifa Sall bi nga xamante ni lii di coalition Yewwi Askan Wi daat nañ koy jël daat koy jiital ñoom nag ñu daal xam ne ni loolee dafuñu ko pour rek daal daal tàggu ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi di président

ndax kat moom moomee daal nay xam ne nii euh, lii di casier judiciaire euh, kii di euh, Khalifa Sall dafa rek daal di set wicc ndax kat moom daal nay xam ne ni amul benn yoon bu nga xamante ni juge bi daal nay proclamer que ni lii nga xamante ni moo di droit wu civique kii di Khalifa Sall dañ koy rek daal da koy rek daal di ñàkk ba tax na moom Ousmane Sonko xam ne rek kon élection yi ñu daal dëgmal kookee nga xamante ni moo di Khalifa Sall mooy nekk seen ay njiita ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di euh, wax ba tey rek ci lu soxal sax conférence de presse boobe gannaaw boo nga xamante ni Ousmane Sonko wax na ci lu soxal Khalifa Sall moom nag wax na ci li nga xamante ni moo di union association euh, des maires du Sénégal moom Ousmane Sonko nag daal nañ xam ne ni loolee nga xamante ni moo di association boobe boobee moom nag reconnaître ko te tax na sax moom moomee xam na ni en tant que maire Ziguinchor du rek daal di adhéré ci boobee association moom sax muy daal di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo di leaderu Yewwi Askan Wi ñu daal di defar beneen association boo xamante ni association des maires lay nekk moo xamante ni dafay waroo ak association des maires du Sénégal ndax kat ñoom dañoo daal di jàpp ni association bi nekk fa lu dul rek daa lu lu neex lii di nguur bu euh, Sénégal ci élection législative yooyee sax la ñuy desandi ba tey daal di nag euh, wax ci euh, ñi nga xamante ni ñoo soxal coalition gëm sa bopp moom it nekkite gannaaw boo nga xamante ni waa coalition Yewwi Askan Wi ñoo nga doon def seen conférence de presse ñoom it di ñaxtu ci lu soxal lii di ñi nga xamante ni ñoo sa bopp ñoom it ñu boobee démb gannaaw ba nga xamante ñu ngi doon amal lii di benn conférence de presse seen siège boobee nekk ca boori VDN ba coalition gëm sa bopp nag li ñu fexe ba daf li nga xamante moo di daal supprimer loolee nga xamante moo di parrainage yooyu ñu bëgg dugal ci élection législative yi ñu daal dëgmal ba tax na bu ñu sukkandikoo euh, ci ki nga xamante moo di Kalidou Niass nekk seen mandataire national moom nag li mu daal di mooy que ni ni moo di euh, les euh, parrainage yooyu euh, nga xamante moom sax dafa daal jàpp ni ab oppression la moo xamante kii di da ko a def rek daal di naxasal yenn ñu ko teg mooy rek ci e bi nga xamante ni moom moomee dañoo daal di jàpp xam ne ni sax fii ci Sénégal loolee nekkul lu nga xamante ne dañ ko fii rek daal di nangu ñoom mooy que ni niki tey jii ci talaata gi nañ rek daal di saisiraat li nga xamante ne rek moo di euh, cour de la CEDEAO pour rek mu daal wax ca boobee mbir balaa rek muy daal euh, yéex ba tey euh, ci législative yooyee lañuy ñuy desani sax maanaam élection législative yooyee ak question parrainage boobee nga xamante ni jur na coow lu rëy rëy ci biir Sénégal gannaaw coalition gëm sa bopp ak yeewi askan wi ñi nga xamante ni ñoo di mouvement de la société civile yi ñoom it ndiki démb doon nañu amal ab conférence de presse nga xamante ni daal parrainage yooyu ba tax na euh, li nga xamante ni moo di euh, mouvement yooyu ku ci mel ni euh, FRAPP France dégage ak Y'en a marre ak nitu dëgg valeur ak ñi nga xamante ne rek ñoo di Sénégal notre parti notre priorité ñoom it daal dañuy taxaw daal di xaax wax rek ci li nga xamante ni moo di parrainage yooyu ñoom nag li ñuy sàkku mooy que ni li nga xamante ni moo di parrainage ñu daal koy supprimer nu mu gën a gaawee ndax bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna kii di njiitu réew mi di président la République Macky Sall loolee mu bëgg mooy rek moo di ay kandidaam waaye nag moom moomee duñ ko si rek daal di bàyyi moxkat moom Guy Marius Sagna sàkku na rek ci ñi nga xamante ñoo di ndaw ñi ñu daal di dem daal di inscrire ci liste électorale a garder pour rek mën a mu gën ki nga xamante ni moo di gouvernement bu euh, Macky Sall ñu wéy ba tey ci xibaar yi wax ci beneen conférence de presse bii nag soxalul ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum politique ndax kat ñi nga xam ñu ko doon def mooy ñi nga xamante ni ñoo di union des magistrats du Sénégal ndiki démb nag gannaaw boo nga xamante ni euh, parti politique yi ak société civile ñoo ngi doon amal ñoom seen conférence de presse ñoom amal nañ seen conférence de presse doon addu wax ci magistrature nu muy doxee fii ci Sénégal loole nag du ñu sukkandikoo ci xabaar yi maanaam ci kàddu yi nga xamante ni jóge na fa dañoo mel ni rek kuy tontu kii nga xamante ni moo di euh, kii di Ousmane Sonko gannaaw gédd bi nga xamante ni génnoon na ko aljuma bi ñu génn doon wax ci lu soxal coowam ak ki nga xamante ne rek moo di euh, Adji Sarr moom Ousmane Sonko sax doon xam ne ni euh, amul kenn ku mën a taxati rek mu daal ca kanamu juge daal boobee dossier amatul benn juge boo nga xamante ne mën na ko rek daal di atte loolee nag tax ba ñi nga xamante ne ñoo di ñoo dee magistrat du Sénégal daal di génn daal di mel ni kuy tontu kookee nga xamante ne mooy maire Ziguinchor ñoom nag li ñu daal di xam ne mooy que ni lii nga xamante ne rek moo di justice bu Sénégal amul benn nit boo xamante ni waxuñu sax Ousmane Sonko waaye benn doomu aadama boo xamante ni mën na tax rek ñu def leneen loo xamante ni bokkul ak seen liggéey ñoom nag ñu daal di xam ne nag duñu bàyyi benn nit boo xamante ni moom euh, coow coow dakaa topp ci wàllum euh, justice di nekk di jéem a taxaw di leen yuux wala di wax ñoo xamante ni warul waxee ak noonu ñoom sax yamuñ ci ndax daan nañu xam ne ni ñoom ñooñee dañoo indépendant ci li nga xamante moo di seen liggéey ndax kat euh, bu Sénégal moom moo leen fay te état bu bu ñëw di nga dam te a baax it li moo di song yi nga xamante ni ñoo ngi leen koy song ci li nga xamante ni daal moo di euh, coow li nga xam maanaam euh, song yi nga xamante ni ñoo ngi leen koy song si at yi rek ñu daal di génn rawatina nag ci mbir bi nga ni moo soxal dossier wu kii di Adji Sarr ñoom nag euh, daal nañu addu ci yi nga xamante ni moom la nit ñi di daal di kaas ndax kat ñoom li ñu daal di xam ne mooy que ni lenteur yooyu mën ta ñàkk ndax kat dossier yi ñu yor dafa takku ba tax na rek bu si nekk il nga xamante ni foofee la ñu war a dem pour daal di sàkku ay information pour rek mën a atte yooyee euh, dossier xibaar yi ñu daal si wéy daal di nag addu wax ci leneen wax nag euh, dem ba fële nga xamante ni mooy ca Kédougou li ki démb nag ca xabaar yi nga xamante ni doon nañ ko dégtaloon nañ leen ko waxoon nañ leen problème mu benn liir bu nga xamante ni daanaka mu ngi am lu tolloo ko juróom-ñaari weer boo xamante ne rek dafa daal di woon réer liir boobee nag nekk ki nga xamante ni daal moo di euh, doomu ki nga xamante ni moo di Aminata Sow ñu gën kaa xamee sax liir boobee di Laasana Wañ Laasana Wañ moomee nag am lu tolloo juróom-ñaari weer moom nag réeroon ki nga xamante ne rek moo di ay waajuram daanaka le 10 mars bi rek ñu daal génn gannaaw boo nga xamante ni yaayam moomee damoon na fële nga xamante ni mooy ca boutique ba ñëw fekk fa boobee liir moom nag gannaaw boo nga xamante ni saisir na lii di gendarmerie ñu daal di rek ubbi ab l'enquête di topp boobe euh, dossier génne gannaaw gi nag ndiki démb xamal nañu liir boobee ñoo ngi ko fekk rek ca benn teen ñu daal di ko fay euh, sàndi loolee nag ñi nga xamante ni ñoo di waa gendarmerie gannaaw ba ñu ñëwee daat nañ koy euh, jéem a def ab constat ba woo ñi nga xamante ni ñoo di waa sapeur pompier ñu daal di xamal ne sax liir boobee dafa xawoon commencé rek di yàqu ba tax na daal ñoom nag jamono ji enquête ba nag si kuñ ko orienté mooy wujju ki nga xamante ni moo di rek yaayu liir boobee ndax kat dañoo jàpp ni ñoom ñaar ñooñee dañoo amoon ay coow ba tax na kon li nga xamante ni moo di enquête ba daal ca moom moomee lañ ko rek orienté moom moomee sax nga xamante ni mooy wujj euh, yaayu ak liir boobee jamono ji nag ñoo ngi ko daal di téye en garde à pour rek amal ay laaj ca euh, lu soxal wàllum euh, liir boobee nga xamante ni moom lañu fekk mu daal di faatu ca boobee teen ñu wéy ba tey rek ci xibaar yi addu wax ci leneen wax nag ci lu soxal ancien international sénégalais bii di Abdoulaye jaañ Faye moom nag jamono ji dafa yóbbu woon ca kanam yoon ki ñuy naan Mame Babou Ndir Mame Babou Ndir nag nekk ab diggante mooy ay terrain yu nga xamante ni kii di Mame Babou Ndour bëggoon na ko jaay ki nga xamante ni moo di ancien international bii di Abdoulaye Diagne Faye mu tolloon si cinq terrain yu nga xamante ni ñu nga nekk ca Ngor Almadi ba taxoon rek euh, parcelle bu si nekk sax moo ko bëggee woon jaay lu tollook vingt cinq millions gannaaw boo nga xamante ni ñoom ñaar ñooñee trouvé nañ euh, accord tax ba ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diagne Faye mu joxoon ko avance ca boobee koppar gannaaw gi nag moom Abdoulaye Diagne Faye depuis booba tey jotul terrain jotul xaalis boobee nga xamante ni moom la joxoon kooki nga xamante ni mooy maam baa baabu ndiir ba tax nag mu daal koy yóbbu ca kanamu yoon gannaaw nag ba nga xamante ni taxaw nañ ca kanamu yoon ah, kii nga xamante ni daal moo di mam baabu ndiir li mu daal di xam rek mooy que ni kii di Abdoulaye Diagne Faye moom dafa ndax yooyu terrain moom dafa nekk ay terrain yoo xamante ni moom moomee da ko rek daal di hérité ba taxoon nag dafa laajoon mu ñu daal di légaliser yooyee terrain pour rek ñu mën kaa jaay waaye nag dafa jàpp ni ah, kookee di Abdoulaye Diagne Faye dafa rek daal di yàqamti noonee nag la kii moom moomee sax mu daal koy proposé ni ko ni bu nekkee dafa yàqamti na ko rek daal di bàyyi noonee Abdoulaye Diagne Faye moom di d' accord ba daal rek euh, jot ci lu tolloog 7 millions yoo xamante ni moom moomee nga xamante ni moo di monsieur Ndir avancé woon na ko kookee nga xam ne mooy Abdoulaye Diagne Faye waaye nag boobu ba tey euh, Diagne Faye moom jotul li nga xamante ni rek mooy koppar ba des waaye nag jotul it li xamante ni mooy terrain gannaaw bañ taxawee ca kanam yoon nag loolee nga xamante ni moom la kii di monsieur Ndir daal di avancé euh, tribunal moom da ko rek di tàq da ko daal di ba tax na sax moom bu ñu sukkandikoo ci bi di Les Échos mi nga xamante ni moom moo génnee boobee xibaar dafa daal di xam leen rek juge ba moom procureur ba moom dafa sàkku rek ci tribunal ba mu daal di daan kooke nga xamante ni moo di euh, Mame Ndir moomee lu tolloog ñaari atum kaso ferme waaye nag daal di jox lu tolloog 15 millions 500 euh, mille francs CFA euh, ki nga xamante ni moo di ancien international sénégalais bii di Abdoulaye Diagne Faye pour dommages et intérêts loolee nag mooy ndar képp xibaar yi tey di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te di leen wax toujours bu leen fàtte ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo au temps réel